yoonu kër docteur njaay muy fukki buntu defe naa noonu la tudd ñu seen benn jigéen paam ne ma xam nga kii mu ngi mu ngi raam di jéggi tali bi jigéen ji ma ne ko déedéet mu ne ma boo ko xamoon ba muy xale nga yéemu ci moom te yàlla nga ko nattu day raam day darngu buy dox te nee na ma bam ca tolloo teetal loolu yàlla àdduna moom moom jaami moo tax lépp delloo ko yàlla rek te nga moytu ko parce que moom ay mbiram du la tàggu ti lu ko neex lay def ti faalewul kenn ko loo ko mënal li ci suuf si yëpp moo ko fi def te lu ko neex lay def lu ko neex boo ne sama doom ji mu rey mu ne la bi reyoo maa ko bind maa la bind maa bind ndeyam lu ci soyoon yow mii kaas dinaa la rey rey ndeyam doole moo toll foofu moom yoonam nekku ci moo tax la lay musal rek mooy nga delloo ko lépp wa ilallahi turjaul umur gis nga pap dundee pexe doxul dundee pexe doxul dundeel njub rek dundee pexe doxul dundeel njub rek dundee pexe doxul dundeel njub waaw tax wal quraani di dikri ba lilladina kafaru fi izzatin wa shiqaaq kam ahlaknaa min qablihim min qarnin fa walaata xiina manaasi ñun fu ñu daw jëm fan lañ mën a làqu ji tey yàlla nee na bu musiba wàccee ci ñoom na ba nga commencé ami tolof-tolof looy wax fan laa jëm walaata xiina manaasi ñu ngay laaj fan la ñu jëm ba musiba wa ñëwee ba natt yi ñëwee ba tolof tolof yi ñëwee ba yàqule yi ñëwee nga commencé nag fu ma jëm fu ma jëm fu ma jëm wala taxiina manaasin teetal loolu rek te ñëpp lay dal beew baaxul beew baaxul beew baaxul waaw te mooy eh, lu ne lu ne nga romb ko fa nga ca war a yem yegg ca foo warte yegg nit xaalis dana ko beewloo doole dana ko beewloo làmmiñ dana ko beewloo bayre dana ko beewloo judd sant dana ko beewloo waaye yàlla alag rek nam defoon firaaw na alag rek daara nga ci mënul daara nga ci mënul kam ahlëkk na min qablihim min qarnin fannaadaw walaata xiina manaasin waaw walaata xiina manaasin fu ñu jëm ñu ngay laaj fan lañu mën a làqatu jamono ba musiba way daanu ci seen kaw amul rëccukaay ki war a baal war la àtte moo lay dumati mooy sunu borom eh, waa boo nag ñu ngay yéemu lool an jaawum ba dikkalee leen benn yonent walla benn borom xam-xam kan moo leen dikkal mu ne mundirun minhum ku juddoo ci seen biir génn jàng ba am xam-xam dellusiwaat ci seen biir di leen waar ñu ne ko yow kaña nga fi seetal loolu xool waaw nga fi ni dina xool di nelaw kaña nga fi day am gis nga ko ñu fi xeex say bokk la xeex mbokk mënta nangu mbokkam xëy yilif ko mbokk mënta nangu mbokkam xëy am lu mu amul loolu aaday nit la da koy bañ du olof rek du Sénégal rek ñépp a koy def waaw am na ñu mënta nangu seen rakk am lu ñu amul jamais am na ñu àttanul seen doomu baay am lu ñu amul àttanuñu ko àttanuñu ko moo tax yàlla nee na léeg-léeg nga bokk ci famille kërti kërti ba am teraanga waa famille ba yépp wan gannaaw ndax ñàkk la ko yéene mu ngi noonu wa ajibu an jaahum mundirun minhum waaw wa xaala haada uh, saaxirun kaddaab yenent bi àtt nañ ko xamul ñu wax yenent bi parce que mu ngi def ay mojisa <coughs> mojisa yu garaaw ay kéemaan ñu ni lii njëbaar la mooy saaxir indi alquran nag wax ni xërëm baaxul nañu jaamu yàlla ñu ne kazaab du waxkatu dëgg kéemaan yi muy def ñu ne jëbarkat la alquran bi muy wax ñu ne waxul dëgg waa léegi pap dama lay laaj yenent bi la ñu wax ni haada saaxirun kadaabun kéemaan yi muy def du dara jëbarkat rek la alxuraan ji waxul dëgg day wax lu dul dëkk rek yonent bi la ñuy wax ku dul Muhammad boo ko déggee noo war a def nooy def sagam euh, euh, sagam sëñ si euh, yonent bi dégg na ko. Ah. mën def ñun ñun ñu buñ ko déggee du ñu wàññi dara. dara du la wàññi dara du la wàññi dara. Mm. parce que dañu nekk ci sa kanam ngay muñi. mooy sunu royukaay. waaw mooy sunu royukaay. ginnaaw moom la yàlla wax ne nañ ko ci xool ci suñu xar kanam mooy suñu seetu. moom ne nañ ko jëbaar kan nga li ngay def ci kéemaan njëbaar la. pare wu ñu ni ko doo wax dëgg. haada saaxirun kii jëbarkat la kazaab du waxkatu dëgg te yeneen bi la alxuraan nettali ko loo ci man te ba àdduna tukki du jóg ci kaamil bi kenn ñemewu xoos kenn ñemewu koo kuppati kenn ko xoos kenn ñemewu ko kuppati haada haada saaxirun kazaab te kenn du ko xoos kenn du ko kuppati <laughs> seetal lool rek yonent bi la ñuy wax loolu yow nga ne fi nan wéy man kenn du ma wax lii duñ ma wax laa nangam nangam fi ma bokk petite patata sama maam sama juddu ti ti ma borom xam-xam yëpp ŋàññi nañu ŋàññi nañu koy askanu ci maamam laysal fata may yaqulu kaana abi balil fata man yaquluha anaza nit jomam mais jomi jàmbur kenn du ci askano dangay def sa jom sa maam jàmbaar na ba dem sa baay jàmbaar na ba dem jàmbaaral ba dem ndax tilka ummatun xat xalal laha maa kasabat wala ku mag tasabtum waaw ku ne ak sa jëf horaire bi dépend na ñi ci dugg la yóbbu yow sa yoon newu ci xaaral sa bos horaire boo duggul sa yoon newu ci xaaral sa bos nga dugg ci mhm. oo rek la hada saaxirun kadab hada amul leneen <laughs> wa ajibo an jaahum mundirun minhum xaalal kaafiruuna hada saaxirun kadab kii lu mu wax du dëgg yii muy def ngeen di yéemu yëpp njabar rek la lii muy wax yépp du dëkk sos la te yeneen bi lañuy wax loolu te mu ngi ne xott ci téere bi ci suuratu saat ñi ko xoos ñi ma bañ a jàng seetal nga tiim saaru alxuraan di jàng ba yegg ci haada saaxirun kaza koy wax muhammad xam nga kuñ bind sa saagoo bàyyi boo ci yeggee doo ko tudd mais bu yonent bi par force nga tudd ko man loo ci dara lii dara gënu ko ñaaw waaye dara yàlla day xam na day wan nit ne ko nit attan naa wax ku baax lu ne attan naa def ko baax lu ne waaye ñëwul dara waaye ñëwul dara lii bind la bind la ci ñi mujj ñëw waaw am na nit ñu rëy nag boo leen waxoon tey da ngay fen rek ñu xar suuf si dañ koy xar benn yoon dee da fen rek wax leen ko ñu dee waaw haada saaxirun kaddaabun kii kii di muhammad yii muy def ngeen di yéemu lii du dara njibar rek la du mojisa njibar la lii muy wax di alxuraanam ji dara du ci dëkk moo ko créé rekk day wax rek asatirul awalina lii bi ñoom maam yaxi laalo yàlla rek seetal li wax ba pare magum jëmm ñu ne ko da ngay léeb asatirul awalina lii bi ñoom maam yaxi laalo yàlla loolu kenn mës ko gis ay yenent bi itam muñ rek xam ne pexe amul waaw yenent bi muñ rek xam ne pexe li fi sës mooy ñeme ko rek ah ñeme ko rek ah boo ko deful nooy def nooy def ku dugg aareen war mbëkk am déet ku dugg aareen déggu ay mbotti mbotti ku dugg aareen ma ne war a ay galgal maanaam feem yi ci bëri yépp di amee ca aareen ba ko gemb ba dugg fa bu la ci benn bett bañ ñu tuuroo nga ca bët bu tuur tuuroo nga ca nopp yu tëxa nga ca dóor la nga faatoo nga ca yaa ko ñeme demal rek amul problème ah boo boo ko suuruwul doo dem il faut nga ñeme ko il nga ñeme ko moo tax ndaw dafay am jom ndaw day am jom bàyyi langaan nangoo liggéey bàyyi tappale waaye tappale rek daa sa làmmiñ fu ne nga taxaw fa wax ju neex sos wax loo gëmul pour am dara baaxul waaw yi nga li gën a bon muy nit ku wax lu mu gëmul soo dee wax loo gëmul sa damir muy sa conscience moo lay njëkk a weddi nit day wax lu mu gëm bul wax loo gëmul paap waxal loo gëm nit su waxee lu mu gëmul conscience moo koy njëkk a démentir weddi ko te léeg-léeg nga tiim nit di ko tagg xam ne waxoo dëgg di ko taggal fekk waxoo dëgg léeg-léeg nga tiim nit di ko yëkkati waxoo dëgg yaa ngi xaar su wax ja daanoo lum lay jox daam saaxo daf ma laaj ne ma ci seen whatsapp bi li nga def ci xalifa sàll bi mu génnee loo ci séentu ma ne lool loolu Niger la ñaar laa Nigeroon man ñaari projet laa am benn bi dama dab mooy Tayib dafa ma dab muy cent millions yi Nigeruma ca dara ni moom bu ko yàlla matalee dara xare nañu mat na tout bi ma journaliste laaye ma ne leen benn ma dese mooy xalifa la ma njëkk mas a wax mooy ku ma ko njëkk a wax dinaa la jox cinq cent mille par cent mille ba muy cinq man misère sama digganteeg sama borom parce que dama ko jàng ci tiir yi ma Abdou Moutalib niséroon na bu amee fukki doom rey kenn ka yàlla may ko fukk ne ko reyal nag acca may dama niséroon yii ni ci sama xol ne ku ma njëkk a wax ne xalifa génn donte am na ñu doon njëkkante fekk jiitu nañ leen waaw dinaa la jox sa cinq cent mille ba yàlla def ñu teel ma ko yónni mais gëmuma ko parce que yi fi jaar a bari ba mu amulee kenn dama ko séddale ndax yéene woon naa ko ma séddale ko cinq cent mille ba génn sama loxo parce que yéene woon naa ko mu des nag mënoon su xalifa génnee fas naa yéene xale yi ci daara ji ma yoral leen añ reer ndékki bés ba bés ba des ajjuma la laa ko commencé woon tey la onze ci lay jeex bi ma fay jógee ndékki nañu gis nga ndékki ci whatsapp bi buñ jullee jumaa incha allah ñu añ nee naa leen njogonal ngeen ciy def cinq heures lañ koy joxe ma teqale koog yàlla parce que loolu laa ko waxoon moom sunu borom ma ne ko lii rek la diggee def ko kay amul loo ci seen tooti dama diggee woon yàlla dimbale na ma def naa ko wutuma ci leneen wutuma ci leneen mu ne ma xaalis bari bi ne ma ne ko kooku bëriwul man euh, musuma def musuma def fàttale ko ko pap defal nit nii rek pare sama xel na ci masul am parce que day fekk ma yéene ko sawar ci yéene la ko mais pour malgré ni ñàkk pexe non non def ma def defu ñàkk pexe lii ma def dama ko man lool lool lool lool laa ko man du sax aw ma lu ma ci téléeg lu ma ci regretté fii ma ci neengam ay bor dara amu ci ba ma ko niseree laa ko waajal denc ko kom ni may waajalee seen gàmmu gi toog yi may def fii kay moo yee benn la rek benn la rek ma ne ko ne wutuma ci dara digge digge digge bor la rek boo ko feyee noppalu nga loolu laa waxoon suma borom may na ma xalifa génn na ci mbaaxam noonu naa ko it kenn dugalu la fi yàlla la fi dugal ti moo la fi génne alors bu loolu amee kay la nga diggee da koy def ci nga niser boo ko defee yàlla may la téléphone baa ngi yuuxu foofu boo ko defee yàlla may la bintuti la nga wax ak yàlla defoo ko yàlla nattu la su ma yàlla mayee nangam ma def nangam su la ko yàlla mayee boo ko deful mu nattu la ndax mag mu toll yàlla kenn du wax ak moom du signé moom contrat di ko wor mën nga wor bintu mën nga wor Pape Gueye man nga wor Iran mais yàlla kenn du ko wor loo signé moom da koy def waaw euh, ci suba walla démb rek kii ak ma naan màgget su xale bu ne ca daar yi mu ne ma neex na ba noppi de waaye bu continué woon ci lay dàq ma ne ko continué ba kañ mu ne ma tabaski déwén ma ne ko fu ma koy jëlee mu ne ma bari ngay xamee de ma ne ko yoona nag waaye sant yàlla bu baax hmm, dama ko niseroon rek yàlla mottilil na ma ko eh, bu dee añ bi joxe naa ko bu yàgg man dépense ci guddi gi laa koy jox ndekki nañu dépense ba mu ngi ci ndeas moom it wax dëgg ko jàmbaar la dong ko yenu ndeas su moom dañ ma ko féetale rek mu féeteeg man rek xool iraa mu mer ak mu dekkoon ak yoonam nekku ci ndeysaan moom ko mo ke du toog fenn kenn tudd Iran boo demee néegam photo Iran rek fa muy xale Daba Mbaye ñu tuddee ko soxna Aïcha bu soxna Umul Xayri joxaat ko soxna Daba Daba itam di sama xarit ndax seen yaay sama xarit la da koy wax ne ko Ibrahima lu mu la sant bëgg la koo def loo demal nga defal ko ko bu toggaloo toggal ko bu du moom du ko def parce que bu ko noonu bu ko def du ko def Ah, waaye mu sonn ci lool waaw ah, heure boo ko waxee rek ni heure bii na pare mu pare waaw ah, mooy ñaanal ko nag yàlla bettee ko boroom kër gu baax gu bari teraanga lool ci man ko caa teral lool nag yàlla ku baax la ñoom ab Abdou Sall Abdou Sall nag moom intérêt am rek waaw waaye lu tey rek waaye intérêt am rek moom koll bi rek waaw ñoom Tafa Badiane Salih ñoom ñoo yor lépp wax dëgg yàlla man awma ci loolu rek li jënti mbir yi jox leen waaw yàlla sottal na ko sant sunu borom rek tey nañ digge woon ak sunu borom may nañu mu ngi ci loxo Ndeye Astou mu ngi ci liggéey ba te defee sant yàlla nag sant ñépp ci tayib soose ji ñu ci def seen alal bari na ala ñu sant ñëpp gërëm leen eh, xalifa yi ñi ñaan bari na ñu sant ñëpp gërëm leen waaye nag ah, sant président moom itam xam nga Pape yàlla du wàcc defal kenn dara day jaarale ci jaam mu dem ci jaam dogal na mun Mountakha mu jaar ci moom ñëwam Ndakaaru mu dem ci président Macky Macky itam yàlla tàggat ko dimanche mu signé lépp tabaarakallaahu xalifa génn dellu ci ay xaritam ay wóllëreem ay bokkam kon ñu ngi gërëm sëñ Muntaxa gërëm Macky wax dëgg yàlla voilà sant leen bu baax a baax a baax dama waxoon ni dina seeti sëñ Muntaxa seeti Macky pour sant leen yàlla dogal bi soxna Marème fay deferee daara raxma bi mu def ci jam ñaajo bi ci wetu arena bi yëgaloon ma ko pour ñu dem ci maw Saalin Sall ba ma ca demee bi mu paree eh, ñoom président di wàcc ànd ak mi président wu bene xaw ma ak directeur ban banque laa génn man wàcce boor bee dajeeg moom mu bàyyi ki mu téyoon ma teg sama loxo ci mbagga mu siggi xool ma ay ah, Iran na nga def ma ne ko maa ngi fi rek dama la doon gërëm ci taxawaay bi ci xalifa sàll ndax jaarale gi ko yàlla jaarale ci yow mu génn ñu la ciy sant ak yi xew yépp ñu ngi la ciy sant mu dima tooñ ne mu ah, danga koy firi nag nga koy firi yi itam ma ne ko waa ah, dinaa ko <laughs> ma ne alhamdulilah boobu moom sotti na jaratul may toog moom gis naa ko wax naa ko la mu ko bëggoon a wax doy na sëñ taxaa ci des du wees yàlla na gudd fan rek fu ko yàlla dogalee ñu nit ñu gudd fan du wees ah mais dinaa dem ba ci moom gërëm ko ci incha allah ndaa itam ku def lu baax nag Pape laa war a wax jërëjëf te def na lu baax def na ci ndakaaru jëf juri ku kenn dul fàtteeti waaw sëñ def na lu kenn dul fàtteeti ci àdduna lu kenn dul fàtteeti ci àdduna kenn dul fàtteeti ci àdduna waaw bu ko defee loolu nag ah ñun ñëpp ko war a rafetlu nag bég ci loolu nag Euh, defe naa ne nag Paap li des ci waxtu yu bareetul ñu ngi leen di fàttali gàmm gi rek bu baax 21 décembre le 28 la ñu am réunion fii ci rajo bi pour waxtaan rek ci doxalin yi dana am nag ay coppite waaw ah ñu fogoru rek. ndaxit it eh, ñu fogoru rek ndax du ñàkk daal eh, eh, la ma tayib soo si waxoon rek ne ma lu la bett man la waaye am naa yaakaar dara duñu ci bett am na yu ñu xam yu bari yu yegg seegul dara duñu ci bett ndax waaj nañ ko waaw bàyyi nañ ko xel xam nga lu gën a neex fa nga toog di wax ngeen di nas nit woo téléphone nit ki ne lii lañu wax fii moom lay nar ëllëg nga yëg ko saye même buñ la ko waxul sax xam nga ne nitu fogoru nga loolu moom nit ñi xam nañ ko ci nit day sóoraale lu ñëwagul da xalaat lu yegg seegul ñi ñoo ni bindoo ku sàgganee la nga moom doo sàgganee doo doo fonk loo moomul pap kuy sàgganee la nga moom wallaay doo fonk loo moomul ku sàgganee sa bopp doo fonk keneen léeg-léeg oto def erreur ma ne Pape Fofana dawal duble ko nga xool waa ji moog oto bi niroo billaay waa ji oto bi ñoo niroo suñ koy double rek Pape day ree ne ma waxoon ma ne ko gis nga jëf ju dofe nit ko dofee rek koy def waaw da ngay si yenn conduire yi boo avancé xool chauffeur bi rek xam ne moog oto bee niroo oto bi daa dof dofloo oto bi parce que xel mi moo doxul. xam nga Bintu code de bi ngeen jàngoon ci kayit boobu xeewi na fi mu ne code de xel a xew parce que boo ne maa ne ci yoon ku nekkul ci yoon dal ci sa kaw ba pare yóbbu la ci yoon lekk ci yow xaalis kon code de jeex na code de la xel a fi ne waaw ah. parce que booy daw da ngay dawalee xel donte yaa ni ci dëgg kiy ñëw ak dooleem may ko mu dem donte nekkul ci dëgg bu mu la tardé. waaye boo buuxee buuxante maa ni ci dëgg yéen ñëppay taxaw te bu yoree xaalis te amoo xaalis fala lay bàyyi dem moo tax code de xel moo xew mais code de la route xewi na parce que euh, ñu bëree ngeeg permis te jànguñu oto kooku boo dajee moom doo doo demee xel te li benn tubaab waxoon sama nijaay def ko noonu Ibou Fatou mu ni ko ah, mu ni ko koo séenati ci tali mu yor oto jàppee ko dof moytu ko mu ne ko bi ci des ndox moo seen mu taa teggi ko ndox moo fekkul ba muy taa bu ci xuus ak sawatu ndax xamoo xóotaay ba nu mu toll nga tubaab xelu kese lañ ndox moo fekkul ba muy taa bu ci xuus ndax xamoo xóotaay xóot na wala xóotul mu ne ko ku siin ci tali bi mu yor oto jàppal ne dof la moytu ko fi mu ne code de la xel moo xew mais code de la route xewi na bu yàgg bu yàgg yàgg tey rekk bi ci sëriñ Fallou joxe nag du xeewi téyel bu dëgër ak sa ñaar mu teg te ni chauffeur du bañ kumpa neel jàkk ci sa kanam su yaatoo duggal su xatee teel jeex na ko dalaa xelangu waaye di dawalee benn loxo boo leeg di waxtaan lu la romb nga geesu ko booy dal ci nit doo ko tey bu nit di dal ci yow du ko tey chauffeur du bañ kumpa du fooyee baar oto dafa garaaw téel ak ñaari loxo xoolal ci sa kanam soo amee fu yaatu duggal bu xatee tayal lii la sëñ Fallou waxoon téel bu dëgër waaw ne jàkk sa kanam bu ne yàng nga ne yoll bu ne tacc nga ne teg xale yi dañoo xamul tacc moo tax ma soppi waxin bi xale yi ñoo xamul boobu bintu moo tax ma ko parce que yi xamuñ ay tacc ak waaw bu yaatoo duggal bu xatee teeyal waaw code de la la ba code de la route bi na bu yàgg waaw xeewi na bu yàgg xanaa xamoo ni léegi-léegi nit jàngale sax masala boo xam ne xeewi na bu yàgg soo ko firee ñëpp jéppi la waaw amatul doxatul fenn fenn la doxul ah day lépp day day xeewi ah day xeewi boo dee dof nag yow yi xeeweeg yi xew ngay boole di dóor rek ah, ah di dóor rek la ma buggaan waxoon ne ma diw moom daa daa mel ni ku yor dibiteeri moom day lakk rek day lakk rek ma ne ko ah, dañuy baxal rek ay <laughs> ca defe naa li ñu amoon ci waxtu yu jeex na ay ca ki doon def waxtaan wi seen mbokk Iran ki nekkoon ci xarale léegi mooy ma ñuq géey ki joon borom réew ju métti jooju mooy Adja Bintou Gueye